loolu moo leen yëkkati mais yoon bi nga xam ni moom lañ ko jëlee moom moo baaxul lool moo baaxul lool parce que nit lu muy def di si ñàkk bakkanam rek booba euh, euh, li wala fi di wax naan weñ bu deewee si soow bëgg dee taxul bëgg sa soow maa tax donc loolu moo tax ñun xale yi dañ leen di encourager pour ñu jéem fexe ba nga xam ne la mën tekkee si réew mi parce que ñun ñi ngay gis ñëpp am na si ñu bare ñi nga xam ni la ñu démarré matul ñoom li nga xam ni moom la ñuy passé jaar ci géej gi démarré nañ ko ba nekk ay industriel ba nekk ay commerçant yu mag parce que commerçant yu mag yi ngay gis fii yëpp ku ci nekk tablier nga woon mais yàlla def sa xareñ ak ndimbale suñu borom nga dem ba nga xam ni da ngay nekk homme affaire bu mag. homme bu mag boobu ngay wax tey est xale yu bari gëmuñu ne war nañoo mën a juddu fii màgg fii tekk fii. yow ban message nga laaj ak da ngeen employeur ngay représenté employeur yi euh, remplacé ki fi jógee muy Mansour Kama fi jógee Burkina Demba Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm yow tey euh, est-ce que yaakaar nga ne liggéey am na fi boo war a mën a tax xale yi toog fii liggéey liggéey bi euh, liggéey am na fi liggéey am na fi parce que boo xool sànq président chambre de commerce tudd na affaire agriculture xale yi mën nañu dem ci agriculture bi liggéey am na domaine yi nga xam ni aussi am fa liggéey dafay xaw jafe mais xalé yi aussi dafa am li nga xamni dafa am moy ñu si baré ci yenn domaines dañ ci amul formation tay Europe formation le gën soxla ay loxo parce que bo ñëwé am nek mécanicien wala nga nek tailleur wala nga nek électronicien pour nga am fa liggéey du jafé du jafé mais yoon wi ñu koy jaaree rek mo nek yoon nga xam yoon wu gëllëngoo se la motax ñun ñu am ci xalaat mais pour tekki si réew mi loolu lu ma nekk la mën naa la fi citer ay cas yu bare bare bare yi nga xam ni la ñu démarré matul cent mille francs te léegi ñoom ñoo yore industrie ah mais xoolal par exemple ku mel na président Babacar Ngom bu CIS ku nekk xam na ni la mu dem la mu la mu démarré barewuloon nga xool ku mel na ñoom Serigne Seck nga xool ku mel na ñoom euh, Serigne Diandongo ñoom Moustapha Lo non mën naa si citer ay milliers et des milliers ku ñu xam ni la ñu woon du woon dara ak ñu bare nañu. tey lan nga yaakaar ne bu ko état bi defee euh, yéen xale yi dañu fi mën a gis seen bopp toog fii tekk fii ak euh, tey ñu bëri jàpp nañu ne xëy na visa yu ñu yombalu est-ce que yaakaaroon ne jot na tey état bi dem wax ak euh, ambassade yi yombal visa bi comme nit ñi dem ak dikk. non kooku moom gëwma ni dana mën dox parce que ñoom seen réew yi dañ koy gën tëj dañ koy gën tëj ndax booy xool. dañu dem ba xat ci seen ay réew kooku mom booy xol image yi da nga koy da da da nga koy gis mais li nga xamni mom moom mën na nekk mooy euh, liggéey bi nga xamni moy liguey bi fi nek ñu gën ko jox sénégalais yi fexé ba nga xamni par exemple li may gis ci mbedd mi ay chinois yu tabax ak ay marocains yu tabax kooku bu fekkon sénégalais yi ñoko yor sénégalais yi dañ ci gën dañ ko gën développer parce que problème bi développement moy lan moy sénégalais bu amé deureum àgg ñaar dërëm wala ñetti dërëm dana woo yeneen moroomu sénégalais ñu ñëw waxtaan ak moom ñu ñëw liggéey ak moom par contre étranger bi lu mu fi am bu ko taxañee réewam la ko jëmee te bu ko jëmee réewam waa réewam ñoo si jariñu loolu nekk na li nga xam ne aussi lu ñu war xàmmee la